discours Diomaye Faye yi da ngay le président Bassirou Diomaye da ngay dégg mel ni danaan comme li xale yi jël léegi ku feeñal ku feeñal sàcc am ndàmpaay comme ni ko xale yi di di di waxee léegi mu mel ni dafa nar ñi nga xamante ni dañoo amoon ay prête-nom wala ñi nga xamante ni dañoo jëloon xaalisu réew mi def ko ci yeneen i tuur ak leneen mu woolu leen indiwaat dossier bi ma milliards yi ñu doon wax ne dañ ko liibal dañ koo luubal ñu indiwaat ko ay Lamine bu asprama amatoon ci réew mi li ma ko xool wax leen uh-huh. moo leen gis ay homme politique yuy daw di génn réew yi. waaw ma gis audit. nga ne ah lan te booba élection amul de. waaw ay asma waay waay waay bu ñuy audité kañ mooy parti au pouvoir day ñàkk. waaw ay waay fi koy dégg rek ñoo may dégg. waaw ñu ko ñu fa yeggul ndox duñu ma dégg ba ko eh, eh. yàlla parce que fa may waxee xale mooy eh, la gis naa sax ab jigéen xam ne damaa gis muy génn réew ana Adji Sarr Lamine. oh dem na. waay loolu laa doon wax ay waay Lamine nañ may dégg. nañuy dégg fa may waxee man du li may wax du ma man du ma mogum xamoon naa man mogum waxoon naa ko laa. waaw wa daw da ngeen lan la wax wala ana ñii audit yi te audit dafa am leneen lu war a feeñ ci révélation yi. ngeen gis ko kon Lamine daal man. ci audit yi ñu jëm am na mbir yu ciy feeñ. maa ngi wax ne. bu fekkee nit bëgg na dëgg. waaw il est important de cultiver des relations base sur la confiance man dama wane ay preuves ba am confiance la confiance mutuelle le respect et l'affection sincère. il est également insensible de la vérité dëgg mu neex mu naqari reconnaître ko uh-huh. ci kaw Sénégal gii ñu ne ku mel ni Ass Barham mosu fee am ba pénc bi eh, yàlla ba àddina bi di jeex doo ko gisati jaari sow ba fii amul lu ma mos wax bu randu xanaa déedéet jël rek monté image wax ne waxoon na fi di waaye boo vérifié waatee ba ci biir ba ca biir wax ma ko lan ba ma naan la damaa gis ñaari camp yi kii di zibilé kii di zibilé loolu am na wala amul. waaw amul ba zibilé waaw ma naan ah bu mu fekkee continuer nag continuer wul nag. gis naa mu dem deuxième tour. foofu lay waxee eh, déggin lañ dégg waxuma deuxième tour. waaw waaw bu continuer. bu continuer parce que ku nekkoon nu zibilé ma ne la Amadou at ma ki nga xam ne mooy Jomaay ñooy ne ca kaw. Lamine yaay fàtte ba mu naan la dana am fu mu yéeg jëlul troisième ay Lamine Sénégal fu ñu ma xamoon. ay bu ñu oh. xamoon ku yaakaaru toon ne Khalifa na raw ku yaakaaroon Idrissa na raw pire may na pire am na benn modalité modalité laa wax. waaw bu mu yéeg. wala pire jëlul troisième. ay uh-huh. eh waay réew bu fekkee xamuñ man may kan ma jóg abal leen dem beneen réew. Lamine ma ne. déedéet di ko jar. man dama am baatin lu ma wax mu am. waaw lu ma dégg mu sotti. waaw lu ma wax mu ne loolu yàlla moo ma ko may. la ilaha illallah te Lamine ba ma naan la kuy falu ci réew mi. waaw foog mu gis Abraham loolu am na. la ilaha illallah te bu rafetoon ñu wax tur dañ koy wax. oh ñun soxluñ nguur soxlawuñ ku ñu fal lépp lu nit di am ci kaw suuf yàlla defal nañ ko macha allah. ci bois ñun lu jagal réew mi Sénégal lañ bëgg. waaw Sénégal lañ bëgg mu jag te am nañ rafet njort ci ñi ko yor. ndeysaan te jeunes yii ba gis nii. waaw ndaw yu dëggu ndaw yu bëri xam-xam. Mm-hmm. ndaw yu baax. ci gouvernement bii di ñëw ay Lamine. waaw di gis lu doy waar. ci gouvernement bi. Lamine bi ñu dawalee feeg ay fan képp ku doon dem di tukki. waaw di bëgg bitim réew. waaw di sën da nga ko bàyyi ñëw toog fi si réew. te waxoon naa la ko ay jamono. Eh, eh. yàlla nañu yàlla may yàlla. yàlla nañu yàlla may yàlla yàlla nañu yàlla may yàlla. Oh. boo may yàlla ëwal am ko aaxir am ko saayir am baatin. yàllaay nekk ak yow boo waxee yàlla wax boo jëfee yàlla wasalaamaaleykum. oh mbir mu doy waar moo nar a xew nag ci dernière partie émission bi ndax Cheikh Ass Barham wax na ba jug taxaw ci ci waxin bu waxee ba jug taxaw rek mbir la te jagle la. lamin ah, Lamine. Cheikh As. du ma du lu ma gënal. dëgg la. Euh, nañ ma comprendre rek. damay gis di wax. waaw du lu ma gënal. dëgg la waaye Lamine lu doy waar a ngi nii Lamine dama la ma soon wax ne la. lu mel nan Cheikh As. Euh, ne la si biir élection yi dafa am parti politique boo xam ne kenn ko yoroon bokkoon ci candidat yi di wàññeeku. mooy kan daañu rëkkale waaw. waaw yatta saa yi ma ne la euh, kenn dina dina ci génn àddina. ndeysaan mais Lamine bii dama gis nii nii nii nii nii nii. candidat bu bokkoon ci présidentielle di desale nii nii nii. candidat boo xamante ni dafa bokkoon ci élection yi. bokkoon na ci biir élection yi waxoon naa la ko sax. ba def karab allahu akbar. Oh! allahu akbar ay waay lamin Lamine dese bi fii la fan fii la weer fii la ki bés. liggéey bi dama koy baax sax dama dama koy baax parce que lii dangay gis ba di gis loo xam ne sax day présent. liggéey bi trop tard dama koy baax parce que li neexul oh. da ngay gis ba di gis présent waaye kilifa gu mag ci politique bii gaañu ni moo ngi ni bee passé maa toog may la marché biy lakk marché euh, kii bi ci même kii nit ki gën àddina léegi ci bi instant yi def élection kii bi euh, émission bi nii moo ngi nii ay Lamine buñ paree ci élection yi émission yi fi ak tàkk ah, dëkk baa ngi nii ñëpp di ko yëg muy siiwaat lool mu ngi nii xam naa booy génn fii léegi rek ñu wax la ne la kilifa gi bokkoon ci élection nii. waaw gën àddina lii moom mu ngi nii kilifa gu mag bitim réew laa la xoon lay gën a gën a àddina waxoon naa la ko. fii ak dimanche wala fii am na kuy ñuy France kilifa gu góor boobu ba la waxee jigéen ba mooy la góor a ngi ñëw bii góor. waaw xam ne ñetti politique bu mag. waaw bi gën àddina ca réew tubaab ya mu ngi nii nag feeñ na. seet bi day wax lu avant at avant at après at présent présent nag moo feeñ tey présent yi nii. tey lii présent la avant laa daan wax mais lii présent la mu ngi nii ni mu gisee woon marché marché bu doon lakk nii. waaw bii da ko gis dese bi léegi léegi léegi. na nga ay Lamine. ay Cheikh As. ay nit waxoon naa la fi ne la. am na ay politiciens yi may gis ñuy daw di génn réew mi. waaw lamin audi audition bu garaaw a ngi am fii ak ay fan. ay Lamine ñoo mësta yaakaar danañ dugg kaso. waaw. ci ay homme de politique mag amoon daraja lool ci réew mi ñoo ngi dugg kaso ay Lamine. gisaat naa ci ñoo xam ne seen yoo nekku ci. sama fit ñu leen ñu leen ciy boole. ndax alal ji day laal ci ñoom. ba hmm. seen tur di ca génn ay waay lu doy waat am naa gis naa ci ay kilifa de. Hmm? Ah, alal ji laale wu ci ay kilifa laa gis ñuy wàcc. ñu ngi nii. mara day ay audit bi waxoon naa la ko l'histoire m'a donné raison Lamine. ay Lamine directeur yi ñuy changé poste ministériel yu bees peq yoo xam ne ay Lamine dana am ñoo xam bu génnee ñii dañuy mer nag ñenn ñoo ne li tax nam namu wuñ ma ñu leen di jëlee koo ci ministre di leen yóbbu ci directeur général. xoolal ministre directeur général ñii dañuy mer tuuti kontaanaat man dama gis ñoo xam ne dañuy mer. tuuti kontaanaat mooy gis ñuy ñuy positionné ci position bu baax ci position yi ñu leen jox ay Lamine. Eh, eh. jafe-jafe boo gis bànneex. bànneex yaa ngi la. waa Pastef waruñoo jooy dañoo war a ree waaw xoolal ñii ñëpp prison ñu ci bëri woon ñu bëri ak ñu taxawante rajo di wax may gis ñu am ay poste militaire yéehée ay waay xoolal fi éducation national ku siiw ku ñëpp xam ñu ko fay dapp ay waay xoolal fii sport <laughs> kii de moom Sénégal yëpp nañ kontaan sport bi waaw kañ ko kii ñëpp ko xam lu wax turam ngi turam ak nii xoolal fii ay waay enseignement bi ay waay kii nga xam nu mu sonne woon si si si gars yi passif xoolal mu ngi ni ñu koy jox. ay waay euh, euh, euh, éducation at femme at famille xoolal jigéen bi ñu koy jox moo ngi nii ku siiw kuñ ko yéene ay waay xoolal justice waay justice bii bi neex na de. laa ilaaha illa justice dina am. justice koñ koy jox maanaam kii yor wàllu àtte yi. waaw xoolal fii ñëppay tàccu ku ko xam. <laughs> gouvernement bi dina liggéey de. dana neex. ay Lamine xoolal justice bi ay waay xoolal Sénégal ne dana sérieux bi ki ñu koy jox. dafa xam nag ay postes yu ma gis yoo xam ne. du changé du changé. waaw ay nit ñoo xam ne ñoom dañoo newoon ci nguur. ah gis naa nag ñoom danañ amaat seen jub. na leen may ñu ñu am. ñu ñu ñu nekkaat ministre ñu reste waat tuuti. ay Lamine. système bi dina changé waaye système bi am na ñu bokkoon ci système ba système ba. ñu duggaat waaye duggaat waaye du système boobu la Pastef di wax système bii changé du système boobu système bu réew mi mooy changé wax ñi seen xam-xam moo leen duggaat. waaw ay Lamine. Eh, eh. prison yi. fees dell. xoolal ni ma la waxoon ne la prison yaa nga feesaat. fii de ay kilifa nag laa gis ay Lamine baal leen ma. kilifa yaa ngay dugg xoolal. ay kilifa yu mag. ay waay ñii di daanu di jooy ay kilifa politique yu mag xoolal mu nii. ndeysaan akbar ay Lamine. ay Sëñ As. audio buy fuité bu doy waar audio. ya ci biir coow li. audio coow li liñ naan kii dina am kenn ku dugal audio buy fuité di setal boppam far di bokk ca coow yi. audit ku perdu la audit eh. benn kii buy fuité mooy dugal waaja moom lu ci am. kër yi nangu kër. alal ju ñuy sisir ay allahu akbar dama ko gis lan loo ay alal yu ñuy saisir yu bëree bëri bëri moo ngi nii feeñ leen nañ. ay Lamine. ay damaa gis fii ci biir maanaam mbir mii di feeñ ma gis si sax ay mbër yu loro ah mbër. ay mbër nga gis ci biir coow li. at ay euh, maanaam ñoo xam ne ay griot traditionnel yuy daan xoolal yi. la bi sax dama cee gis ñoo xam ne mën nañ cee la loru. ba ci sëriñ si sëriñ si xoolal sëriñ si. ba waali du ci bokk. ay déet man kat dama gis fii ñu bëri ñoo xam ne sax yaakaaruñu woon ne ñoom danañ ci bokk ñu leen ciy boole. allahu akbar promoteur yi bàyyi lamb di daw lamb ji di nekk si ay jafe-jafe musique bi nekk si ay jafe-jafe combat yi bëri yu waroon am ñu yaakaar ne am muy baax mu yàqu allahu akbar ay lamin opposition bu bëri boo xam ne dana ñëwaat waaye ñu ci bëri waxoon naa la ñuy génn koo ci opposition di daw ay waaye di dugg ci nguur sira jande war a jande suñ kutee mangala ay opposition bi nga gis seexaas sarax si réew mi saraxu réew mi oh génn na de lan mooy saraxu réew mi ñu def ak saraxu jomaay saraxu réew mi saraxu jomaay xoolal sarax si sénégalais yi war a def sarax ci réew mi soixante-dix sase ndox par kër soixante-dix sase ndox par kër dañoo bëgg mu naat réew mi waaw nañ ko def mooy saraxu réew mi saraxu réew mi ci jamono saraxu nguur allahu akbar saraxu nguur waaw seet bay seet bay génnee sarax aywa randu moom tey deux cent trente six taxawee kun fayee kun ci par samp gis nga deux cent trente six ay saamu yàpp deux cent trente six saamu yàpp par gox eh kii na ko na ko nguur gi def baax na soixante six nag yu weex taal par quartier par quartier ma ne réew mi day neex loolu dañ naan lu bon rek lay wax xolof yi ne dafa gis ni réew muy neexaat ñëpp di bëgg réew mi di kii ay jeunes yuy liggéey dëkk bi neex ñëpp di kii euh, ñëpp di di sant yàlla seen doom yi di am xaalis xoolal 60 nag yu weex tàll par par par par par quartier. na na kii bu ñu ko par quartier ñaata lay doon ci région. par par région. par quartier 66 nag maanaam 66 nag par région ñu tas ko ci ay quartier. 66 ah. nag par région ñu tas ko ci ay. quartier ñu tas ko ci ay quartier. waaw ah, waaw. yaa ilaaha illallah. ancien président de bi boo waxoon day tukki. waaw l'histoire m'a donné raison mu ngi nii Macky. am na beneen post bañ koy fal. moom Macky Sall. na nekk. opposition bi jaawaloo. xiiroo ngaayoo. carrière politique yu bëri yu yàqu. xoolal ay homme politique yu bëri nga xamoon ñuy retraité. na xool. bëri na ci ñaar ñett ñeen juróom juróom benn juróom juróom ñett waaye dama gis sax ñu bari ñoo xam ne sax ci ay politique dañuy bàyyi politique carrément bàyyi. dem docteur Diakhaté am na nag ñu koy gis ñuy dugaat ci biir nguur. allahu akbar. waxoon naa la ko waaw. l'histoire m'a donné raison ñu bëri ma ne eh, dama cee gis see ay doom ak ay ay rakki président ah waaye lii moom eh? rakki président yuy dugg ay kilifa yi kilifa alal yuy génn kilifa kii de dama gis sax ci ay ñi ci nguur ak ay tur yi génn ñu dem kaso alal ay waay buy juboo buy juboo ah macha allah alhamdulilah ci réew waxtaan ay labin waaw dama gisaat fii musicien bu mag ci ci at monde bi bu ku rëy. waaw kuy génn àdduna musicien bu mag a mag a mag a mag. woo kooku deuil national comme politicien bii ma gis mu leer nii naññi. waaw kooku am na. ay waay Lamine. Uh-huh. séisme bu mag. séisme. yee États-Unis. maa la dig taali. kii de dafa mel ni moom it waaye yow tey moom randu lii la la lii de mu ngi daw nii nii nii nii mu ngi daw nii séisme bu mag 30 waxoon naa la ko l'histoire maa doon ne raison. xoolal ci émission yi mujj yi may la am na buy am États-Unis ñeneen États-Unis nañ tey li demoon mag Maroc dana ne États-Unis mu ngi nii bii dafay daw nii Lamine. kilifa gi ma la wax. waaw mu doon ku mag kuy gën àddina si wàllu politique te mu feeñ nii. waaw si biir génn àddinaam ay fan yu néew a néew a néew a néew. accident bi ma la wax di am. waaw yoonu Kaolack bi. am nit ku siiw ku ci bokk kuy génn àddina waaw waxoon naa la accident bu amoon ci oto ba commencé yàlla na yàlla xaral àjjana waaye ci diggante bi balaa ñu wax semaine kenn foom diine bu mag ci réew mi bi génn àddina wasalaamaaleykum wa rahmatulah laa ilaha illa kilifa diine guy génn àdduna waaw fala Cheikh As Barham tëjee émission bi tey yéen a ngi fàttaliku ndeysaan ca 44 44 ba la njëkkee ak Basiru ca indépendance bi 64e année fa la si dalee ak ñun ñëw ci turu yàlla bi ñëw ci bélier wu bi ñëw ci révélation yi tëjee ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Cheikh bu ñu la amul woon fu ñu jëm mënoo woon a ñàkk ci suñu réew mi mënoo woon a ñàkk ci révélation yeeg ci waxtaan wu neex wi dara bettatuñu ci réew mi ndax lu nar a ñëw wax nga ko lu naree neex wala bu naree métti waxoon nga ko ci bu ñuy mën a topp say vidéo mën koo décortiquer kot la ciy def saa su ko neexee te dañuy jaar askanuk sunu gaal ñoo lay jaajëfal jaajëfal sa soppey xarit yi am di jàmm yeeg internet yi lay topp fii ci àllu Sénégal jox leen dig daje ëllëg seen yeneen i émission jërë ngeen jëf